asubila bisimilah ina wala yàlla asalaamaaleykum axlaam seen doom day organe borom yéen kaay moo ñëw ni leen suñu lamb jeudi mars 2020 gros titre ni demee ginnaaw bu ko Modou Lo daanee ba mu duggee ci biir lamb ji ramadan bi mi ngi ñëw couvre-feu bi mi ngi fi est-ce que saison bi duñ tiit tiit noonu la demee troisième pas ñu dem frère comme suñu lamb lu ngi koy defee saa su ne écurie Lansarong ba nañ entraînement nag ba nañ ko waaye moom coach jox nañ ko planning entraînement mu andi sa ay doomi ndaayam Abdou Diouf ma nga Canada di waajal combat bu fa États-Unis la jëm moom Gris 2 moomee war a daje Abdou Diouf mu ngi ci dindi Lac Rose dindi Lac lay rayee boppam bu baax a baax a baax

ndax kenn ku nekk te war nga war nga wax sa bëgg-bëgg war nga kaas war nga xam ne man lii bëgg naa ko wala lii bëgguma ko nga wax ñëpp di ko dégg moom Alioune Sarr moomee na toog nag xalaataat ci biir xelam jàngataat a a baax ndax mënoo kenn koo xam ne bëgg na nga jiite ko ndax sa comprendre ko war moom war na xoolaat boppam moom ak waa CNG bi nekkuñu fi dundaluñ làmb la dundaluñ làmb ñoom ñooy dundee làmb ji moom loolu roi des arènes buuru làmb ji moo wax lu ni septième si euh, trois ñu ne nag période bi neexul dara war nañoo tiit de bu baax a baax ci fin saison naa bañ a yegg jalgati laam comme ni nga defee saa musculation jagat la am tey kan fa nekk Balla Gaye de mu buntu salle musculation bi pour entraîner moom borom salle bi la fekk ci buntu bi nag tëj na buntu ba nee na ko Balla Gaye de tëj naa sama mu ne ko ñun mbëri ñoo gën a perte mënuñoo entraîner mënuñoo bëree yéen a kaay papa pëng yéen a kaay tey maa ngi koy may suma xarit suma doom yaay Aziz Touré l'intellectuel de xeexoo lam borom xeexoo lam jëlal yaay borom seen doom day organe moo